jërëjëf euh, Modou jaab Diat di jërëjëf waa Talahal Badru Aleyna jërëjëf itam mbokk yi nga xam ne yéen a ngi déglu mbokki na nag tey jii la altine di fukki fan ak benn muy la 11 juin 2018 di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor ci atum 1439 ana lan mooy actualité bi. information bi ci njëkk mooy dañoo gis ay image am na lenn ci télévision yoo xam ne jàllale nañ ko benn ku ñu tuddee ASP ASP ab tënk la firi mi mooy assance wala assan sécurité de proximité agent sécurité de proximité muy ASP muy police yoo xam ne yaakaar naa ni président Macky Sall moo leen taxawal ñuy jàppale waa ci sécurité bi waaye Modou Olof Ndiaye day faral di wax ni ku ñëpp tuf li nga tooy duma leen wax dara nag waaye ñoom ASP yi bëgg naa ñu xoolaat seenu doxalin man de yaakaar naa ne seen rôle yéen ASP yi wër te weesu jàddal oto jàddal fi jubalal fii yaakaar naa ne seen rôle wërta sa weesu loolu parce que civil ngeen gën a jege homme de tenue parce que da ngeen a xëy ci civil yi dem dem dem takkuk der sol ab tenue ma bëgg na ngeen doxalin doxalinu nit man am na benn waay bu ma nettali ak sutura rek ne ma dafa am euh, benn ASP boo ko xam ne saa su ko rombee mu ko lu jëm ca kër ga. nga xam ne yëf yi sageetul waaye dafay mujj sax niru la sàgge ab sag dama bëgg bu fekkee li nga xam ne moom lañ leen war a jox dafa doyul nañ ko lijjante fi ñu ko war a lijjantee mais buñ ko teg nit ñi léeg-léeg da nga ciy jànkonteeg yoo xam ne doo ko sax mën a wax ndax yërëm leen wallaay laxasim man damay gis loo xam ne ASP dama ciy teg bët fuñ ma woo ma firndeel ko ma teg ci bët mais doo ko sax mën a wax parce que yërmaande jooy am ci ñoom donte nag liy defar société bi moo ñu fi bàyyi de ñu bàyyi xel loolu lépp luy defar société bi dañ koy wax lépp lu koy yàq daañu ko dénoncé pour ñu bàyyi xel loolu bu baax itam donte yërmande am na waaw mais wax dëgg yàlla handicapé handicap mooy ko yàlla manqué li yàlla xañ la bët nga ami bët yàlla xañ ko làmmiñ nga am làmmiñ yàlla xañ ko dégg nga amub dégg yàlla xañ koy loxo nga ami loxo yalla xañ koy tank, nga ami tank amo dara loo ko mën a ci sa cër yu mat yi lu diko toroxal ya ñak fayda taway di ñak xam li ngay def te pourtant ki yalla xañ ay cër deful li yalla lutax mu xañ ko ay cër yow mi yalla matal say cër defaloo yalla lutax mu matal say cër nañu xol am déet gis nga Modou Diop caat yow mi suñu borom xéewale la yàlla na xéewal gi jëm kanam suñu borom matal say cër billahi wal kitaabi defaloo yàlla lutax mu matal say cër gis nga ki ngab bekem di dox wala moy darngu lek la nga gis sax koy xalangu wala ki degul wala gisul gis nga deful yàlla defu defu ko lutax suñu borom xagn koy cër yàlla la sop pour man sa tànk yi ngay doxe nii moo war a doon tànk handicapé pour man sa bët yi ngay xoolee moo war a doon bëti ki silmaxa pour man sa làmmiñ wi moo war a doon làmmiñu ki ki mënta wax pour man sa nopp yi moo war a doon noppi ki mënta dégg nga wëlbatiku defatoo dara bàyyiwoo ko ak boromam nga jël doole ji la yàlla jox di ko ci toroxal ak di ko xaw ma nag ndax police jàpp na ko wala jàpp ñu ko wala gendarmerie waaye asp bi def lii dañ ko war a jàpp futti ko ba mu set wicc mu doonub civil te bañ a doon takk der teg ko ci yoon nag tëj ko kaso alaman ko mu fay ndàmbaay kii mu toroxal bu dee da cee jële gaañu gaañu na ko faj parce que lii teguwul fenn nag gis nga li ñuy wax ne ça suffit mi ngi bëgg a ëpp c'est trop te lu ëpp tuuru lii ma gis moom muy xew Sénégal xam nga Modou Diop lan moo jaaxal réew moo xam ne police a ngi rey ngi rey civil yaa ngi rey taalibe yaa ngi rey bouillon yi di rey réew mi léegi tey mu jeex naqar di rey boobu laa fàtte woon waaw police di rey gendarmerie di rey civil yi di rey taalibe yi di rey buñoo yi di rey naqar yi di rey réew moomu kan moo fay des moo taxit ngi mel ni tulleeg male armeel yi moom boo demee day mel ni néew yi dañuy jongante dee waaw nii rek day mel ni màggal ko tas waaw lu ko waral parce que réew mi lañu tegul ci yoon bu fekkee am réew lu neex waaye def tañ ne kenn du ko wax yow mi toog di ko wax ñu ne dangaa bëri wax li muy wax nii da koo jar sëñ Mamour ñi daa bari wax nagam ak nagam li muy wax waru koo wax waa te ki ko def néewoo waru koo def naa fi xamante weesu loolu Papa Balla Gaye dem def aw njommeem ba mu ko defee waxoo ne waru koo def sëñ Mamour wax ko nga ne lu tax mu di ko wax te ko def néewoo lu tax mu def ko naa feq baaxul Sénégal nañu bàyyi naa feq tey waxante dëgg looloo fi ne pour man ki ko def moo gën a rëyle ki ko ki ko wax. ki ko wax moom daa wax pour dénoncer mais ki ko def dafa def lam def nag mën naa yàq mën naa defar jëf a gën a rëy wax yàlla ba muy wax ci alxuraan néewul ku wax ma fay la dane ko jëf fal yaxmal xamalan saalihan la yàlla wax waxu ne ko wax de jëf la yàlla di fay moo tax muy ASP muy police muy gendarmerie muy douane muy sécurité muy suisse muy magistrat muy procureur muy comme ci man di doon saa soo wàcce yoon dañ laa war a teg ci yoon ni nga xam ne imaam bu wàcce yoon dañ ko war a teg ci yoon muy noddukat bi muy sëriñ daara bi muy sëriñ bi nga xam ne ci moom la ñuy jébbalu man li ma bëgg mooy ku wàcc yoon nañ la teg ci yoon parce que mooy tax Sénégal jëm kanam ñu bàyyi négo négociation yu ëpp yi nag teg ko ci yoon dañu jaarale ko ci yoon teg bi ci yoon ni na jaar ci yoon parce que l'islam bi mu indee dafa indi ay ay ay atem dafa indi ay ponkam indi ay yoonam ku def lii ñu def la lii ku def lee ñu def la lee loolu nañ ci teg suñu tànk mën a jëm kanam mais ASP yi lenn ci ñoom laa wax li ñuy def fenn lañ ko tegul te xam nga lu ma ci gën a métti mas naa cee jànkonte kenn xaw ma ko xawma ma mais naqari deret gi ma wan wallahi buma ko topon du bax ci mom waaw te pourtant dañoo dajé defuma ko dara xawma dafa manki dépasse xawma dafa am problème te gis nga Modou job ciat commissaire djéju mi ngi may dégg man na ma dëggal gis nga homme de loi wëro amu nakar sa kër diko ko civil yi xawma la ne ca loi ba dé waaye li de man gëm naa ko te gëm naa ni buma togon ak ñom duñ ma wax lu contradictoire ak li am ak li ma wax moy homme de tenue bu amee naqar biir këram pour man li ma jàpp sama xel mooy waru koo mën a woon population bi seen yoon nekku ci parce que loolu vie privée la lii nag vie publique la liggéey bu ñu la mission bu ñu la saase la mais bool amoon naqar dikk ba koo seppi nit ñi mënta nekk ñaari ban ñett ñu harcelé la ñaari ban ñett ñu yuuxu la ñaari ban ñetti ñu ne la tëll am pees nde billaahi bu àdduna doxoon xaw ma homme de tenue xaw ma homme de loi képp gu jël sa loxo teg ko ci sama lex bii da ngay pes waa Sénégal gépp wala nga jóge fi dootoo pes ba àddinay tukki Sénégal nañu xam seeni loi nañu xam li leen loi may ak lim leen xañ am na loo xam ne kenn amul sañ-sañu di ko def nit waaw gis nga xas gis nga saaga gis nga duma amul kenn ko am sañ-sañu def ko nit lu dul ne loi dafa dal ci kow ñu war koo def loola waaye ñëw taxaw ñaari baat ñett ñu ne la téll ampes nga këpp ñaari baat ñett ñu daggal ko saaga ñaari baat ñett ñu xas na ne sëbët yu rëy billahi bu sénégal gépp meloon man ko ko def dootoo ko defati waaw dañu bàyyi caaxaan yi te jël yëfi teg ko ci dëgg teg ko ci yoon waaw gëddaate beeg yuuxoo beeg xulli ay bëtëg dafa amul njariñ ñun ñëpp ay doomu aadama lañu dañoo am ay ndayeke bàyyi nañu jël teg ko ci yoon ki nga war a yar boo fexee ba mu ragal la dootoo xam la def ba di ko yar gis nga joob caat xam nga lan moo tax ma ne sécurité bi dañoo war a fexe ba nit ñi ñeme leen gis nga yow mi boo amoon sa doom sa kër nga fexe bam ragal la buy tox doo ko yëg buy naan doo ko yëg buy jaxasoo ko jigéen doo ko yëg fekk ma ngay taal dëkk bi te yëgoo ci dara waaye gis nga bu la ñemee du la nëbbu dara loo lu mu def ko yëg nga mën koo orienté teg ko ci yoon takk der nañu fexe ba bu leen civil yi ragal nañ leen respecté te bañ leen ragal encore une fois waxoon naa ko ko waxaat mais man daal wax dëgg yàlla li ma gis xawma ko bu fekkee daal ab tën yi ci la ñuy gënantee di gënantee ci aw sant di gënantee ci lu ñu xam di gënantee ci lu ñu am billaahi wallaahi watallaahi ku ne Sénégal dana jëm kanam ma taxaw ne la waxoo dëgg waaw réew moo xam ne mbubb la ñuy gënantee ab tën yi réew moo xam ne dañuy gënantee ci ab garaat réew moo xam ne dañuy gënantee ci aw sant réew moo xam dañuy gënante ci am njàng réew moo xam dañuy gënante ci am-am réew moomu ku ne day jëm kanam ma ne la waxoo dëgg Sénégal mënta jëm kanam tànk loolu mi ngi am waaw dañu bàyyi xel yooyu ñun ñëpp ñoo fa yàlla kenn gënul kenn tànk bisub sisement ba taxawul waaw la grande journée de sisement tànk amul Modou Diop caat kenn xamul ku gën kenn gënante wuñ ciw sant gënante wuñ ci askan gënante ci am-am ñun ñëpp a yem nit ku nekk la muy gëne moroomam mu ngi ca biir xol ragal yàlla la te yàllaa ko mën a siise ñu bàyyi caaxaan maa tax kon maa ngi leen di ñaan yéen ASP yi ngeen xoolaat bu baax fi ngeen di teg seen tànk nekkalu leen fi ab président nekkalu leen fi ab ministre. lu leen fi ab maire askan wi ngeen fi nekkal war a sàmm dara ci seen sécurité jàppale ci police kon kay xool leen fi ngeen teg seen tànk mais daal li gis xawma ko leen nag laa leen di wax na ngeen lu baa xool fi ngeen teg seen tànk parce que yu mel nii bu amatee dinaa dénoncé lu bëri nag parce que gisu lu bëri lu xóot duma ko wax nag bis bu ngeen toroxalatee nit wala ngeen xatal nit wala ngeen tortiré nit billaahi wal kitaabi li ma xam danaa ko wax te bis bu ma ko waxee xaw ma koy taxawate ci ab tëliwaay du yéen waa il faut ngeen xool bu baax seenu doxalin parce que jàdduwul li ngeen def fenn ngeen ko tegul waaw